Bienvenue sur Salam Vision. صليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدا المختار في الخدم alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi tawajjaha bi taali lqabuli man istabahu wa salaka bihim sabila rashadi xata naana ma naana kul al aman wa saqaahum bi kaxsi lwidaadi kaxsi ansi baada ma sharafum bi tadaani xamdan abdan muqtarifin bila ajzi fa kayfa la ajazu an asriha wa hiya mutadaiman mutaraadifatun alayya wa ala xalaaqi kulli adab wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan ila alxalqi kama xala allahu taala wa ma arsalnaak ila rahmatan lil alamina sayidina wa nabiyina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an cheikh tijani allazi shaa tariqatahu bayna albariyati burhanul barahim kama xala mawlana abu bakar si yaa qutbu yaa gawsu yaa mawlaaya yaa wazaru yaa muntaha amali billahi yaa qamaru mawlana cheikh ahmad tijani sharif wa radiyallahu an cheikhina wa jaddina wa murabbina wa walidina wa wasilatina kama qaala mawlana cheikh seydi mouhamadou mansour si ibnu cheikh seydi alhaaji malik si cheikhun taqiyum laa yuzannu bi ribatin ala al istiqama bil ilahi muani aynu alxaqiqati waaye wa aynu shariati innahu yahdi almurida li xaalis alyam mawlana cheikh seyd alxaaj malik si wa jamii muqaddamihi wa xulafa al ajmain wa baadu nuxayikum bi taxiyati islaamiya naqulu lakum assalaamu alayna wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu dellu tiyaar sant yàlla cant gu amul ab waxuma sax ci waxuma sax ci teew bi ñu fi teew waaye wér gi ñu may rek ba ñu mën a toogee jataay bu mel nii xel bi ñu may dal gi ñu may rek mënuñu ko fay maanaam moo ci alquran ni wa in taxudu ni'matallahi la taxsuha waaye nag innal insana la zalumun kafar bu bamtuwaat ko ci ay alquran waxaat wa in taxudu la taxsuha waaye nag inna rabbi kon xam ne ñun dañuy dëkkee tooñ ak wedd waaye nag moom tamit bu dëkkee jéggal ñu ak yërëm kon dañ koy sant bu baax a baax xam nañu xéewal yi ñu defal mënuñu ko fay bu doon lim xéewal tamit fii la ñuy fanaan kon dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax ci wér gi ñu may ci ñu nekk jullit waaye fa tabarakallah tamit nekk njabootu Mawlana Cheikh Tijaani waaye bu bu ñu am ma jëmale ñu foofu mu nekk suñu maam Cheikh Seydi El Hadji tabaarakallaahu di julli ci Seydina Muhammad waaye di ñaan yàlla rek comme ni koy faral di waxee julli ci moom amul pertement ndaxte ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon moo xam nga yor njàpp moo xam nga ñàkk yor moo xam nga salt moo xam nga set foo jullee ci moom rek yàlla jox loo ko yàlla yàlla may làmmiñ bi ñuy jullee ci moom tabaarakallaahu di ñaanal suñu sëriñ na Cheikh Tijani yàlla yàlla doon li ñu soppaloo ko waaye buuj bi ñu fay omb di ñaan suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick yàlla na yàlla dolli leeram tabaarakallaahu di nuyu nag àddina yëpp di jiital ci nuyu xalifa de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour atallahu amruhu wa ayyadahu nasara ñaanal ko yàlla na yàlla dolli guddal faram yàlla na yàlla dolli guddal faram noonu la ñuy nuyoo Serigne Mountakha Mbacké xalifa de Mouride tabaarakallaahu moom it atallahu amruhu wa ayyadahu nasara yàlla guddal fanam bàyyi ko fi. ba ci kanam a kanam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo tamit ziyaare ko ñaanale ko mboolem xalifa ci ko suuf ñaanale ñoom ñëpp yal na yàlla dolli guddal seen fan. wa tabaarakallaahu ñu toog tamit tey ci bis bi ñëw fii ci Fadia seet si suñu xarit suñu doomu ndey ak oustaz Mouhamed Ndiaye sopp nabi ànd ak moom ci bis bu tedd bi waaye nekk bis bu metti wa tabaarakallaahu nekk bis bu metti donc bis bu tedd la. bis bu tedd la wax dëgg yàlla waaye bis bu metti la bis bu metti ci Tiwaawan la yàlla dogal mu dellu si waat waaye bis bu metti woon ci Tiwaawan la bu doyoon lool ndax ñaari biddiw yu fenk noonu kii fenk waaye nag du ci ñoom la jiitoo du ci ñoom la jiitoo du Tiwaawan la jiitoo ndax sa maam Siraaj Maalik mi nga xam ne dafa doon na Rasulullah ba jeex tàkk mu ñuy jàngal waxaama duxmin wa samaani ashurin wa ayin yowman tawaamuhu keroog bi nga xamee ni fa tabarakallahu Moustapha am na quarante neuf ans ak vingt boobu ñu ko joxee nubuwa bi am na ci quarante neuf ans del quatre alphabet cinq del quatre alphabet cinq mille quarante mu ne quarante wa ayin yowman ñii wa akkin la ñii wa ayin la fukki fan ak benn ñii wa akkin quinze vingt alif benn vingt un arrangement la moo ci xew mu ne ki nga xam ni moo waxoon moom mooy protéger rasulullah yi ànd ak moom nag donte yàlla waxoon na fële ci min baari xarxalati waawoon yuqaal laha ha anti xurmatu sayid bada umati isa wadaati sami muhammad waaye am na leneen lu jiitu woon su yàlla waxee malaaka yi alaaj maari wax ñu ko ñu ko doy naa ko sëkk doy ko ko sama bopp waaye bu amee quarante neuf ans yooyu ak ñaar fukki fan alaaj maa nee na ki nga xam ne moom mooy nijaayam boobu. wuyu ji na borom subhaanahu wa waaye kii sax dem nañ ci ñetti fan. waaye alaaj maa suuf ñoom tamit dem fan. waaye fii nag wa ba'da salaasati ayyaamin Xadijatu mu taw wax ñu amee ñetti fan. alaaj maa nee na Xadijatu kon nga xam ne kon métit yàgg na ci kaw suuf. kon nag bu suñu maam alaaj maa suuf demee al kii alaaj bu suñu maam altine. ajjuma alaaj maa suuf dem. nga xam ni kon àddina yàgg na am na métti kon mu tey loolu moo dellu si waat jamonoy dox 1957 la woon boobu juddooguñu waaye histoire di nettali tey ba ñu mën a toog tey fii tey di ko waxtaanee di waxtaanee góor googu fa séeni si ànd ak oustaz Mouhamed Ndiaye ak waa soppu al amin sëñ si suñu sëriñ bu baax boobu xam ni fit ak jàmbaar ak ragal yàlla ndax dañoo al xulqu dasas mm. si dafay doon nante te bu ñu demee ba ci biir incha allah rabbi daañu ci leeral lu bare bare bare bare bare bare góor googu nag ñuy waxtaanee dama koy faral di wax neex na waxtaanee neexu la waxtaanee waaye man Oustaz Diarra damay faral neex na waxtaanee ndaxte kuy sa baay Cheikh Seydil Hadj Malick loolu dafa doy kan mooy Cheikh Seydil Hadj Malick ñu wax la kan ci ragal yàlla bi ci maandu bi wala góor goo ko ni ko laa ayba si watti bàyyi xabibi Seydi Malick xool naa la xool la décortiqué la mais gis naa ci yow gisuma dara dara dara ci yow lu mu soppal suñu laay am na ko doom bi waxoon di Serigne Babacar Sy kii tamit taxaw fee ni que laa ayib ba si watti baa ayib yow dara dara dara amul benn ayib yu alaaj Malick dudul fi yàlla bëggee jaam teg fa tànkam nga teg fa googu nag mooy bàyyi alaaj Mansour alaaj Mansour moom nag lañu fa séeni waxtaane balaa ñu ci sore nag di ci dugg rek di wax ni mu gën a si àdduna ndax kenn ku ne tey Moustapha dañu jàngal nan la gën a see àdduna kon war nañu xam Alaaji Mansour nan la gën a see àdduna Serigne Malick wax nañu nan la gën a see àdduna Serigne Mahamadou Sa si Jamil Serigne Babacar Sy tant d'autres tant d'autres dañuy daañu xam nan la Alaaji Mansour gën a see àdduna ak bu muy gën àdduna lan moo ko waral ak bu mu gën a see àdduna bu mu demee tamit nan la fi bàyyi loolu maanaam ñett na bi ngay ñëwee ak bi nga fi liggéey ak bi nga demee bi nga ñëwee loo fi def ak bi nga demee loo fi bàyyi kon tabarakallahu daañu ci ànd ak Oustaz Mouhamed waaye nag balaa ñuy sore ci wax ji rek ñu jox waa sopp na fa tabarakallahu ñu ñu nuyoo ibbi nuyoo bu ñu nuyoo pare ma jox Oustaz Mouhamed bu ci bu am lu mu am lu mu indil ci li nga xam ne moom mooy sayidil xaw mi di góorgóor nga xam ni kenn defaru ko kudul bàyyam waaye laata bàyyam bi jot ci moom nag sonn waaw mu war a xam ne laata bàyyam bi jot ci moom dafa sonn tëbul tëbul jur ko te ku mu neex rek yaay tëj tëj déedéet lu ko mu neex yaay jur Alaaji Mansour waaye nag wax fii yaayam jaar ak baayam wala lu ñëw li tax mu xool ba mu xool yaayam di ko ne yow mii laa bëgg nga doon sama doom yow mii laa bëgg nga doon sama baay yow mii laa bëgg yow laa bëgg nga ji yaay dugg ak yéen ànd seeg yéen ak ak yi mu def ci ay magam waaye ak ni mu yaree ay rakam ak jikko yi mu def ci moom nga xam ni moom euh, junneeg ñaar téeméer la yamale woon moo tax moo xoon alaaji Abdu ni ko wa sawi ahlal ghina wal faqra fiika na nga yemale ki am ak ku ñàkk moo tax alaaji Abdu nu mu mel noonu rek la mën a mel ndax ki a def ci moom la ki mu mel ni mel kon sab sab sab alaaji kon bismillah وصليا يا إلهي وجيا أبدا عنا محمدا مختار في الخدم وصل يا إلهي واجزي أبدا وعنا محمدنا المختار في الخدم وواجب طاعته هادي محبة كذاتباع التي ياتي من الأمم وسليا يا إلهي وزيا أمد على محمدنا المختار في الهدى على وتقالوا إن أعظمها جمال سنته من جملة يرفعن وسليان يا إلهي واجزيان محمد محمدا المختار في الله مولدنا محمد أحمد الماء وعاشرنا نبي مرحمة توب ومن مع مولدنا وسليا يا إلهي وجزيا محمد محمدنا المختار في محمد الناس المقاف بشاء فائق قدرت وكاسها والسكون نيام كتبنا وسليا يا إلهي الأبد أنا محمدنا المختار في المقبرة يا ربي صل على محمود سيدنا قبل شفاعته فينا ولم ينفعنا وسليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمدنا المختار في الله مرني وصليا يا إلهي وسيا أبدا أنا محمدنا المختار في الله بارك الله بارك الله فيك يا يلا بارك يا نيجي نيجي digg yàlla doy na waar xam naa tey bi ngay mettre Oustaz waxoon naa keroog muy reetaan mu mel ni rek da ngeen a dégg ndax nit ki xam ku ku neex a nekkal mooy ku ku am dégg-dégg ndax wax nañ léegi léegi ni El Hadj Mansour si El bàyyi nga indil ñu ma waajibun taatu hadi mahabbatuhu mu ni farata war na c'est obligatoire c'est forcé mm. wa waajibun taatu mm. wa waajibun haadi mm-hmm. wa waajibun mahabbat mm-hmm. yii c'est obligatoire c'est forcé lu tax mm-hmm. ndaxte wa lakum fii rasuulullaahi uswatun hasana wallaahi Maalik te tànkam foofu noonu Alaaji Mansuur tamit noonu rek lu mën a mel kon boo xam ne sas naa mel mm. lii nga loo ñuy indil tey ci ki nga xam ne moom mooy Seydil Qawmi waaye nag nekk ku bari tur alhamdulilahi alhamdulilahi alladi jaala raxatul qulubi bi madxil awliyallah hmm. wasalaatu wasalaam ala asraf almursalin sayidina muhammadin ya abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وأمتنا ووصلتنا إلى رح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي العباس أحمد التجاني شريف فاتح الحسني رضي الله تعالى عنه وكي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi bàyyi xel seen télévision Salam Vision ñu ngi leen di nuyu ci nuyu islaam nuyu bi nga xam ne moom lu ñu yàlla booy defal muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ko nuyu mboolem koo xam ne jullit nga mboolem koo xam ne yaa ngi bàyyi xel télévision bi Salam Vision yow ñu ngi lay ziar di la jox sunuy naxooy xol waaye tàgg boo gis am na jàppal ma diw oto lu ma xat-xat nuyul ma sama yaay xaj na ci oto bi ndax du fay yóbbanti kon ñu ngi nuyu ki yàlla jiital ci nuyu bi Serigne si Sy Mansour di doom ci ki nga xam ne moom lañu nar a waxtaanee mm. Cheikh Seydil Hadji Mansour Sy mm. radiallahu anhu mm. nuyu ko ziyaar ko moom Serigne Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla gudd fan lool bu ànd ak wér ci barke yonent ba alayhi salaam nuyu ko ziyaar ko ci bisu way juróom wi waaye tamit di ko ñaanal yàlla tawfiix ziyaara Serigne Maodo Sy afisuhullah wa waraahu wa baqaahu wa ayda yàlla yàlla sàmm ko wattu ko dëgëral ko desal ko ci kanamu njaboot gi moom ak Serigne Babacar Sy Mansour ak bu Alxaaji Abdul Aziz ak njabootu Mawlaaya Seex si la Seydi man Hadji yëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar noonu la ñu def di ziara Serigne Mountakha Mbacké ca Touba di ko ñaanal yàlla du fan lool ba ànd ak wér ak wérle ak njabootu maam borom Touba gi yëpp dem ba euh, Kaolack fekk fa Serigne May nga ziar ko ñaanal ko yàlla dem ba Léona fekk fa Serigne Seex Tidiane nga ziar ku baax waaye dem ba bu sura suñu dëkk Serigne njabootu sëriñ Ahmed Ndiaye Abou di ko ziar waaye ka nekk ca kaw mooy Mahamadul Habib Ndiaye di ko ziar bu baax di ko ñaanal ak njabootu sëriñ Ahmed Ndiaye gi yëpp dem ba taaleen fekk fa Cerno Maki ziar ko dem ba laayeen fekk fa Sërif Thiaw Abdullahi ziar ko ñaanal ko yàlla tawfiq ak taysir bi jaahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ziara soppe yonent bi alayhi salaam ziar oustaz Diagne bi nga xam ne mooy ko sëriñ Babacar di ko ziara di ko ñaanal yàlla ak taysir ci barke rasulillahi alayhi salaam bi am mbégte ak kontaan bu baax ci moom di nuyu suñu soppi yi suñu xarit yi yi nga xam ne ci rasulillahi alayhi salaam ndax kulli xisbin bi maa ladayhim farihun yàlla nee ne ak li lay bëggee ñii yàlla ñu boole ba ñoom Haji Basir ba al amin ñu ngi koy ziar bu baax nga xam ne bu tëggee yonent bi xol yëpp bëgg woyee ci yonent bi xol yëpp tooy dama ne defagul dara ñu ngi koy ziar bu baax ak Haji Ibrahima tabarakallahu di ko ziara di ko jox wàcc waayam ak xaaja faamara tabaarakallaahu kii moom tabaarakallaahu mooy fu ñuy dem tabaarakallaahu mu ngi noonu moo ñuy yóbbu borom oto bi tabaarakallaahu muy ku baax di ko ñaanal yàlla tawfiq ak tey si di am mbégte bu baax di nuyu xaaja mi nga xam ne mooy nekk ci kii bi ñu koy ziar bu baax di am kontaante bu baax ak moom ak mbégte tabaarakallaahu tabaarakallaahu bu mel ni ñoo ngi wàcc dugg ci li nga xam ne moom mooy waxtaanee góor gu mag googu di ma Mouhamadou Mansour Sy bal xaw ni nekk na dañuy wax araab dafay wax tegte dafay wax ni bare tur ci góor yàlla dafay wane màtta doom mhm. day wane mbaaxam mhm. te ku bare woon ay tur la ku yéemoon tamit ñu ñuul ñi ak weex ñi la mhm. bu ñu waxee kan comme ni ma koy faral waaye way jur bu jigéen di soxna Sofee du ñan nekk boroom xam-xam nekk ku yàlla baaxal nekk ku yàlla sellal mooy way juróom bu jigéen waaye Cheikh Seydi Hadj Malick nit ñi xamuñu kan mooy El Hadj dañuy jéem rek waaye nit ñi xamuñu kan mooy El Hadj moo tax euh, boo ko bëggee xam da nga koy laaj ñi nga xam ne ñoo ne ci jàkk yi ak jumaa yi moo tax fookat tàmmul alaaj Maalik laaj bi dem tàmmul alaaj Maalik Seydi Hajji Maalik boobu moom mooy bàyyi alaaj Mansuur ndax nit la waxee kon askan la bokk danaan fii la bokk moo tax alaaj Maalik jàngoo ni Muhammad Nuuru Abdullah Cheybata Hashim wa abdil manaf maa xuseyun kira dem ba ci mujj gi mu ne wa adnaana mu ne kenn man yujaawizu adnaana fa takzibu qad jaa min al bi mu ne képp ku jéggi adnaana booy wax samay maam li ngay wax wératul lu tax wératul mu ne maa ngi ko ci ku ñu xam ko muy rasulullah man ji man yujaawizu adnaana fa takzibuhu kala weddi qad jaa min alim mooy rasulullah ndax moo ne kuy woy sama man jaaza bi adnaani man man jaaza adnaani bi juudi fan kazaba kuy woy sama maam boo jégee adnaani ngi wax wératul Moustapha moo wax loolu. asalaamaaleykum mu ni kon ku jéggi adnaani rek ki la weddi mooy rasulullah waaye dama alaaj maam indil ñu waa kër yaayam Amina bintu Wahab ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhra ibnu Mustafa al-Alami ibnu kilaabin waxul fii ibtisaabuhum aadikatul xëyri hindul ubuwa bihimi indi na bàjjen yi salma layla aadikatul barra sawarata muaanatulum mahdulu ay wayaa yelii ba mu jeex kon kooku ki la indil askan rasulullah kooku tamit war nañoo mën a tamit indi askanam wala bu nee na Alaaji Mansuur kan may way juróom bu góor nga ne Cheikh Seydil Hadj Malick kan mooy Cheikh Seydil Hadj Malick moom la góor gi Aliou Ngéye wax ni isa nahnu jihnahu min taallumin wajadnahu sahlan layyinan lam yushadid mooy góor gi nga xam ne boo boo boo ab bëggee xam-xam ñi raw ki leen jàngal mooy Seydi Hadji Malick waaw ni mu jàngal ñoo raw parce que moo jàngal rek mooy nag ki nga xam ne boo ñëwee di bëgg a xam-xam mu mu jël xaalisam jox la jël xam-xamam jox la kooku mooy bàyyi Alaaji Mansour Alaaji Mansour kan mooy ñu ne Alaaji Mansour nekk na doomu sàkk wax naa ko keroog ne fa li cheikh yi te addabu جميعا حر المجد والفقر ستنطق كل أناس اليوم بفقرهم ولكن جد ولكن abu بكر جدير على الصدر Seydi Hadj Malick ay doomam ay doomu sàkk lañu biir àjjana la ñu ne woon Seydi Hadj Malick di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba jàkkaarloog ñoom ni ko ñii dama leen a bëgg jur ñoom ñu gëstu xool Alaaji ni ko waaw nangu ñu nangu jur ñu Alaaji Mansour nee na Oustaz Mohamed neena na daan naa jaabante asamaanu benneel ba juróom benneel di xool jigéen bu war a doon sama yaay déggu leen nee daan naa jaabante asamaanu benneel ba juróom benneel di xool jigéen di war a doon sama yaay mun ma ko gis mu xëy bis alaaji maale jël xaalis jox soxna Sofeetu Ñang ni ko toggal añ mu togg añ maam Sofeetu Ñang ay doomu jigéen rek la doon am dafa am nittu yàlla bu mës a ñëw seen dëkk jaayanteeg seen waa kër yi ni ko yéen dootu leen am doom bu góor jigéen rek ngeen di am dootu leen am góor bu leen doon nag moo topp maam Sëriñ ñam bu mun ñu kër dara boobu dañ laa ñaanalul ku naan ñaan mënul dara boobu dañ laa ñaanalul waaye bu la ñaan léegi nga xam ne ab duwaa silaaxul mu'miniin am ci doom jigéen ñu ngi ko tuddee soxna Roqeetu Maalik moom mooy turandoo suñu maam Roqeetu Njaay mi nga xam ni moom mooy wéyjuru Serigne Babacar bu jigéen soxna Roqeetu Malick moomu daan na jékki ji saa di jaabante ci kër Cheikh Seydi Hadj Malick naan Serigne Babacar daa baax rek Serigne Babacar daa gooy rek waaye ñu fiy joxe naan ay góor yàlla du ma jig xadratu ilaahi ba gis leen fu te jigéen te lu góor yàlla di naan soxna Roqeetu Malick naan na ko mag la ci alaaj Mansour Alaaji Mansour nee na ma ne ma war naa kii moo war doon sama wajur bu jigéen. Hmm. Alaaji maa la jël xaa jox soxna Roxaya jox jox soxna soxna soxna soxna euh, maam Sofie du ñàkk. Hmm. mu dem marché togg bu mu toggee pare soxna Sofie du ñee ne rus naa togg njëkk a ñam Alaaji maa la ñam bi. Hmm. Ah, léegi war xoolaat de. naa togg njëkk a ñam Alaaji day togg ba pare te du ñam ñam bi. nee na rus na njëkk a ñëw Alaaji ci togg bi bi mu toggee mu yàq toj taalib yi yëpp lekk bi taalib yëpp lekkee am benn taalib bu lekkul maam Safari ñoo ne ko waa du tax lekkoo mu ne ko ceeb bi daa saf xorom maam Safari sukk sa sukk ci raam yi sukk di raam di raam di raam di raam di raam ba ci Cheikh Seydi El mu ne ko si maa ngi jéggi xaw ma noo def ba am sa dépense nga sonn nga dang day nga ma ñëw ma lay toggal di la toggal lu ñaf borom maa ngi jéggulu si sérieusement ni ko sufeetu togg nu mu méttee nu mu amee coono ngay ñaq soble bi di la bëgg rey di nga dinaa xalaat lépp lépp lépp lépp lépp dul nga togg ba pare maa nga togg bi sax lu xam mm-hmm. sufeetu jugal Alaaji Mansour nee na ci laa xam ne kii moo war a doon suñu waajur bu jigéen ñu ni mu konnee ñu ni ci la ñetti ñetti ñetti jox Cheikh Seydi Hadji Malick ni ko damaa bëgg nga ma am loo xam ne dafay daagoo ñu xam ne kontaan nga ci man Alaaji Malick ci yàgg na Seydi Hadji si dutu jëwam soxna su mës boo amee Alaaji Mansour waru jox kenn laa xam mun nga kontaan naa ci yow mu ne ko waaye damaa bëgg nga ñaanal ma am góor guy daagu fii nii ni dafa jël njigu ñetti ñetti ñetti ñetti yëkk jox ko ñii ni ñetti yëkk la ko jox ñu ni ñetti yëkk yooyu moo nekk ñetti ponkal yi mooy alaaj Mansour mooy alaaj Abdou mooy alaaj Abi moo nekk ñett ñii muy di alaaji abdu di alaaji abib ñu ne ñetti ñetti ñett ñetti ñetti yëkk yooyu ñu ne bokk na ci ñi mu joxoon moo tax gis nga jigéen yenn saa yi di nga nekk sa borom kër ci biir kër gi nga bëgg lu baax nga génne sa teraanga dara jox ko ni ko kat ñaanal ma ma am doom ju barkeel loolu soxna yi dañ ci war a jàngat ni soxna lan la war di comporter ak borom këram moo tax bi waa na ñuy fekk Sidna Muhammad ko bëgg naa la trop mais war mu gën laa bëgg Moustapha ne ko loo bëgg mu ne ko woon li mu woo ko mu ñëw wuy si ko mu wax li ñu wax moom dafa ne Moustapha ma raay sa tànk Moustapha ko raayal mu ne ko ma raay sa mu ne ko mu ne ko raayal mu ne ko ndax ma sujjóotal mu ne ko bii nit wax dina na soxna sujjóotal borom këram ngir dimension bu mu toll nag waa jooju di Alaaji Mansour ni mu gën a see at na di woy juróom boobu noonu la ñuy tàmbalee ak yéen ndax émision bi kii mooy borom mais dañuy tàmbalee ak yéen rek wan ne la ku am ku sa waajur bu jigéen mel nii nga war a mën mel nii ñu alaaj Mansour kon ngeen am loo ñu indil rek ci ay ma ay na Moustapha bu ñu noppee ñu doog a jàkkaarloo Oustaz محبة يمن وأمن ورحمة وتكسر من الأنواع واختار عاليا محبته يمن محبته وأمن ورحمته وتكشف من الأنوار لمن كان عاريا محبته يمن وأمن ورحمة وتكسر من الأنوار من كان عاليا وكان نبيا بي هو عالما وآدم بين الماء والطين صاويا وكان نبيا بي البصير غاويا وكان نبيا بي مبت عالما مصطفى الحاج منصور سي مالك نينكو وادم بين الماء والطين الصاوية يا ظبية بذي الصلم ترى الصيال والصلم هاجت علي لوعة تفضي علي بالعلم كأن من أصلها شمس تبدت في ظلم صاع أو كوكب منتخد يمده جوء الجلم في جفنها في جفنها محمد منصور في جفنها في جفنها صيف صفيل خائل في المصطلح وفي الصلاة يا بارخ يضيء إذا أدلها مجنون ليلى ما التقى بما لقيت من صرف سيدنا محمد الحاج منصور مالك مينا walawlaahu lam tadri lxaliqatu qadruhu. muy Basir yaa ngi nar a neexal waxtaan wi nag. bii fataxallaahu kunu salmawaat. Alaaji Mansour xasida boobu mi ngi ko def 1944 toll ci 44 ans yoru yoru altine ci la taxaw ci rawdu rasulillahi xasida baa ngi commencé araftu li salma bi yafaa maxaaniya غدا للثواري معذرات البولية وقفت بها حيرانة من لاعج الأذى وكاتم صفرات الجوارح باكية أسائلها أن أهلها أين يمومون فصم صداها an tujibal munaadiya mu dem ba si yàgg naa fa kayfa yujibul qawla rasmun mu'affirun affat aayuhu illa salaas asaafiya damay ñëw damay ñëw kii ko kii ko kii ko damay ñëw xasida boobu alaaji Mansour wax naa la ne mm. foofu la commencé mm. ndax alaaji Mansour mm. ruuxam dafa jaxasoog yonent bi xam nga lu tax ruuxam dafa jaxasoog yonent bi xam nga lu tax ruuxam jaxasoog yonent bi dafa jaxasoog ki jaxasoo yonent bi te kooku may kan sax Seydil Hadji Malick bi fa saxallah kunuhu salbaliya Modou Bassir ñeent njool ñoo am hmm. njool Makka jàppal benn mooy rasulillahi njool Faas Sidi Ahmed Tidiane hmm. njool Fuuta alxaaji Omar Fuutiwu hmm. njool ci waawoon sax la Hadji Malick moomu moo jur alaaji Mansour mi nga xam ne bayit yooyu nga wax Laaji Mansour moo ko wax ci rasulillahi te daana ko firi ba mu leex yi fataxallaahu kunu salba Laaji Mansour dafa miino raw di yonent bi ruuxam daal def ay di traversé ay jam ay jaww di dem ci yonent bi ndax ah mooy Ahmed Rafaay nii ruuxam miinoo woon yonent bi mm-hmm. ndax Ahmed Rafaay daana toog këram Serigne Jara mm-hmm. di yebal ruuxam ruuxam di dem di ziyaar yonent bi naan fii xaalati bu'd ruuxi kuntu ursiluha taqabbala al-ard wa anhu hiya naibati haadihi dawlatu asbaay qad xadarat famdud yaminaka kay taxsaa biha safati mm. ahmad rafainin ay jamono yu yàgg yu métti daana sama ruux di ko yebal ah, ndax nitu yàlla loolu yomb nañ laa ñu mën sóor mii noonu tëg yonoon gis nga salmaan googu ni mm. ngi firiwul dëgg dëgg jigéen mm-hmm. mu ngi ca namm sayyiduna muhammad ndax arab dafa tàmm buy wax ak du xëy rek di la wax say maam ndax Basiir ku lay tagg il faut mu jaar ci say maam bu bëggee am ci yow daal. Alaaji Mansour foofu la jaar di neexal yonent bi ba ma ne fii daal. naa na man sama ruux miinu na ma ne maa ngi laajcante. ay na ahliha ñi dëkkoon fii anañu ay na yamamoo. fan lañ dund. fa sama sodaaxa an tuujibal munaadiya mu ne mu tëx rek. kàddu wuyu na tex tuxuus. mu ne illaa salaasu asaafiya mm-hmm. moo fa des xam nga asaafiya uh-huh. su loxo uh-huh. mooy fii jigéen ñi toggee uh-huh. ñetti was yooyu la waaye mu namm ci mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam Seydi Ahmada Tidiane daal laay gis laa ñu mën sa raw yooru yooru altine la ko def 1944 toll ci 44 ans bi mu xam loo sabab loolu demam dama màkkaam may guerre 39 40 45 mooy guerre problème dafa am France bu métti ba ñu jaaxale ñu ne leen lenn rek kay mën a fay ger bi ngeen dem Sénégal duñ fi ñaanee mu fay bi ñu ñëwee ba aéroport ñu ne leen fenn ko mën a fay mooy Tiwaawan am na kuñ naan Seexul Xalifa bu ngeen yeggee bu fa ñaanee yàlla fay guerre bi ñu yónni dem fa ñu wax ko Serigne Babacar mu ne ëpp naa ci ñaan loolu tuuti naat loolu tuuti na ci man sama rakk laa yónni mooy Alaaji Mansour te boobu mën soor toog na ba si yàgg xam nga moom fu mu ñetti am ko mm-hmm. gis nga bi muy dem màkk ngaay mexe la jógee mm-hmm. fu mu toll ñetti ànd da koy wër mm-hmm. day tubb loxoy cuur ñetti loxoy cuuraay sotti ci ànd bu nekk moo mag ñu indal ko cuuraay ànd cuuraay def ci xal mu jël cuuraay sotti ca na ren gii daa xam nga moom dafa xawoon a nos. soo ko misaal daf ngay mel ni Seydina naa ndax Seydina Ali yàlla dafa def ma xaw a gàtt am tuuti biir. laaj Mansour loolu la ko yàlla mayoon. mag ñu ne man daal ren gii xaw ma nan laay def ba du ma dem màkk. waaye xaw ma nan laay def ba màkk waaye xaw ma nan laay def du ma dem màkk ñu ne ko lu tax mu ne bicc guddi damaa fanaanoo wër kaaba gi bët set. waaw bicc guddi damaa fanaanoo wër bët set. mu toog tuuti rek am ndaw ñëw donc alaaji Mansour gouverneur moo ñu yebal ndigal bu bàyyeekoo ci Serigne Babacar Sy nee na nga uyu ko alaaji Mansour sol ma mba mooy benn mbaxa mooy garabu boo xam ne baxa la mi ngi kaaloo kalma palmaan kaaree palmaan koo xam ne fa bëla moom la kaaloo woon di dox dem uyu ji gouverneur gouverneur na ko France de guerre ba ci am lañ bëgg mu fay nga dem ñaan dem màkk pour mu fay te sa mag jox na la ndigal bee ngi noonu pour nga dem ci la laaj Mansour nag waaj ni nit di waajee pour dem màkkatal mu karam te dégg xadis yonent bee tax mu jaar Medine mun ba si bëri na koo xam dafay dem Medina ngir puukiroo waaye demul fa ngir sàmm xadis yonent bi te rasulillahi sa turandoor dafa ne man xajja walam yazurni faqad jafaani mm-hmm. ku aj màkk te ziyaaroo ma Seydina Muhammad man nga rusloo te ku rusloo yonent bi yàlla nga rusloo te ku rusloo yàlla musiba dal na la alaaji Mansour def farataam ba léppam jeex mu sol yére ba dàq ci yére ya xam nga fu mu jëm ki dàq ci jaamu yàlla yi parfum bi dàq ci xam nga fi mu gën a neex ñëpp parfum mooy Mamadou Rasulillahi falamma danaw yoor yooru altine falamma dana min salal badri udan jala sa maam sa maam Mansour ki ñu waxtaanee ne dëgg dëgg man Mansour man ki ma mar leer daal fenn laa ko mën a naanee mooy rawdu yonent bi falamma dana min salal badri udan jala bi taybata bayna xabri wa min anquu qul bi taybata bayna xabri anquu qullati wa min bari xeyr wusli ablu kitaabiya falamma dalawna min solal badri wudan jala laaju Mansuur nee na mar gi mu nekk ci man maru leer xam nga mar alxulla mooy mar goo xam dafa métti bu mënatoo dem mënatoo waxati laaju Mansuur noonu laa maree ci leer te yëg naa taw yay taw ca leer yay taw ca law rasulilaay leer yu leer yooyu yëpp rek ci laa mën a naan ne sama foofu laa koy doxee ko jàngee man alaaji Mansuur falamma darawla min salal badri udan jala mu daal di jàkkoorloo rawdu yonent bi falamma darawla ko kaana biyar bi nubuwati aliman wa aadama baynal maayi wa tiini wa kaana nabiyan bi nubuwatu aliman yonent bi nee na danaw naa parce que dafa jàkkaarloo leeru yonent bi rawdu yonent bi pavillon bi di dóor gauche ak droite yonent bi na fànn Alaaji Mansour jàkkaarloo moom naan ko rasulun hamidun hamidun wa muhammadun nabiyun sama fooq sima kay ni saamiya rasulun gis nga ba yonent ba léegi ustaas mi ngi dund ndax ama Ahmed Rafaay bi mu ñëwee ci rawdu yonent bëgg laa xamal kan mooy Alaaji Mansour Ahmed Rafaay bi ma ñëwee ci rawdu yonent bi dafa ne ko yonent bi xam nga li ma bëgg sa tëddaay rafet na sa tëddaay jekk na lenn rek laa soxla sa ndeyjoor bi nga loxo bi nga ndey jooroo moom laa bëgg nga rocc ko ci sa biir bàmmeel ma teg ci sama loxo texe àddina ak laaxira mu jékki-jékki rek ñu gis bàmmeelu yonent bi na taj ca xar Ahmed Rafaay yonent bi tàll loxo ndey jooram Ahmed Rafaay teg ca loxo ndey loxoom ba foon loxo yonent bi daanu xam ndax leer gi génne ci sayyiduna Muhammad alayhi salaam. rasulun. booba fekk na fa Cheikh Abdul ji Jilaani bay Ahmed Rafaa yi def loolu. rasulun. sa maam Mansour garaat boobu la ko yàlla may mu ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko ndaw nga yow sayyiduna Muhammad alayhi salaam. hamidun. yow sayyiduna Muhammad aji sant nga. hamidun. sant koon nga. wa Muhammadun. yow lañu wax Muhammad yow lañu sant. nabiyun. en même temps yàlla daf laa solo. sama. yaa ki yëkkati ko. fawqa. yaa ki nga xam ne kawe nga simaakayni saamiya bii du simaakayni saamiya yow rasulillah yaa ko kawe wa dawatul usma alaaji Mansuur ne bés damay ñëw ci alaaji Mansuur alaaji Mansuur ne dëgg dëgg yow suma turandoor dawxatul usma yuzallu bi zillihi يمن بلا من وينفي المعاسيا ما في دعوة العظمى دوكو تي الحاج منصور الضوحة ما يقرب وي boo demee ci dëkk village yi da ngay gis benn garab gu nekk ci digg dëkk bi suñu añee ba pare foofu lañuy ñuy dem di fa naan ataaya xale yi nekk fay di fo mag ñi nekk ci seen seen seen yooyu toog ca seen seen toog yi toog ca lépp lu ñuy nas ci dëkk bi foofu lañ koy nasee lépp lu ñuy fecc foofu lañ koy feccee Alaaji Mansuur na ab dawxa mooy garab gu nénjan taam yowmal qiyaam nee na Seydunaa Muhammad mooy dawxatul uzma mooy ëllëg addawxa mooy ëllëg ñëpp ci keroog yonent bi alayhi ñu utee ker yu zallu def ne uti ker di lu gën a yéeme mu ne yemunu daf lay may xaalis bilaa man nin du la ñaax wayam fil maasiya bas damay fii satar boobu dugg ci alaaji Mansour alaaji Mansour na rasulullah yemunu daf lay may alal te wala tubtulu sadaqaatikum bil manni yàlla nee na bu leen yàq ci sarax ci seen ndam hmm. doon nekkutoon man du am lii kon yooyu boobu sax naa ko ko may kat hmm. bëri na ci alaaj Mansour Moustapha hmm. am ci moom soxla mu dalal la néeg këram toog ak yow di waxtaan ak yow di waxtaan ak yow waxtaanu nu muy gën a mu ànd ak rek ngay ngay ñibbi moo yëkkati alalam joxal gunge la naan ëllëg ñu waatal ma dolli wayan fii ma as yàlla loolu moo jar a wax Hmm, wa yan fii dafay set li wet dafay dàq ba mu set lépp almaasiya mooy yàlla yi ñu ne ko Alaaji Mansuur loolu nga wax foo ko teg mu danaa la ko leeralal ndax damaa yër téere yi Seex Sidi Xaaji Maalik téwo ba téwo ba moom a balancé hmm. muy Seex Sidi Xaaji Maalik la nekkoon ci dënnam hmm. moo ñëw roogaan ci sama dënn ma Mansuur mu ne rasulillahi wa yan fii dafay dàq mooy yàlla setal ko wet lu tax dafa am benn waaju ñëw ci yonent bi fagg kër yonent bi sëriñ saam na ana sang bi ñu ne ko sang baa ngi ci biir mu ñëw yonent bi dalal ko ndax yonent bi xamul baadoo la xamul dara sëriñ na ko ne alaaj Abdou Bakka alaaj Mansour yi way na ko yemeleel ki ñàkk ak ki am waaw wal faq voilà ñemeleel ki nii xal bi xuusi kullu maa fiika mu ne ko danaa la wax loo mm. waa ñëw yonent bi dalal ko luy sa tànk mu ne ko dama am gis benn xale bu jigéen bu rafet ma bëgg a séq moom mooy yàlla ma ñëwoon ci la tàggu parce que loolu ku la ko waxoon looy wax da koy yuuxu naa ko yox ko yow dangaa nangam dangaa nangam Moussa nag ah ma ne ko ma ne ko baax na toogal yonent bi téye ko loo wax mu ne ko lii laa yonent bi ne ko afa tuxibuhu li ummika fa xaala laa afa tuxibuhu li bintika fa xaalallah afa tuxibuhu li xaalaatika fa xaalallah afa tuxibuhu li amaatika fa xaalallah afa tuxibuhu li uxtika fa xaalallah loolu mooy lan yonent bi na ko nga ne dangaa gis xale wu jigéen boo gis bëgg ko bëgg a mooy ak moom yàlla waaye ñu ko waaw yonent bi ne ko ndax bëgg ko seq sa wayjur bu ñu ne ko déedéet bëgguma ko seq ak moom de yonent bi continué ne ko ndax bëgg nga ko seq ak sa doom mu ne ko déedéet mu ne ko ndax bugg nga ko seq sa tante mu ne ko déedéet ndax bëgg nga ko seq sa bàjjan mu ne ko déedéet ndax bëgg nga ko seq ak sa wala sa mu ne ko déedéet mm-hmm. yonent bi ko koo dem yaay jàmbur la wala muy doomi jàmbur wala muy rakki jàmbur wala muy magu jàmbur wala muy tante jàmbur wala muy yumpaañu jàmbur wala muy mbokk jàmbur jigéen ñaa ngi boo bëggee sëy takkal yàlla barkel sëy bi jël loxoom teg ca ko bopp ba ne allahuma taxir qalbuhu wa axsin farjuhu yàlla kii yàlla nga fóot xolam ba mu set wecc waaye yàlla nga laab ñoo ngeen ay cëram ba du mayati yàlla téere yi jàngale nee na kooku keroog ba ko Moustapha defee lee loolu dund na ba dee xelam musta dem ca mooy yàlla alaaji Mansour na kon wayan fii maa asiya dafay dàq mooy yàlla seetal ko wecc moom seydil xaw mi ne nag sama turandoor noonu lay def ah, baarakallahu baarakallahu <laughs> daanaka émission bi mi bi waaj a neex neex na ma pare sax. Hmm. waaw ko nekk si Mouhamadou Mansour moom nga xam ni. Hmm. mooy sëriñu. si góor yàlla la ko wax. wax naan jël góor yàlla def ko góor yàlla mu gën a yomb mu moom la ñu bindee. maa hmm. la ko wax. te suñu maam Sëriñ ñoom moo ko ñaanal Seydi Hadji Malick hmm. Seydi Hadji suñu maam Sëriñ ñoom musul musul yëkkati suñu si dudu jëwam maam Seydi Hadji Malick mer na moo tax wax naa ko léegi alaaj maa si moomu nag addiyee la muy juróom bu génne hmm. jox Cheikh Seydi Hadji ñii ne juróom-ñetti mag ñii ne fukki mag. Mm-hmm. ñu def ay dog baalaaj Mansour Gane si. tawajjaha haysu maa shi'ta wa innaka mansuur. wallaahi sama loolu la. ñii déedéet tawajjaha haysu maa kunta wa innaka mansuur. Mm-hmm. ñii déedéet tawajjaha haysu maa kaana waaye lu ci mën am lépp wa innaka mm-hmm. mansuur. amul ku ko jàngal amul ku ne ci moom lu ne ci moom ku dul Cheikh Sidi El Hadj Malick wax naa léegi ni bidaatul maliki la oh. ñoom ñëpp ay bidaa lañ da fekk ne rasulaay moo am benn bidaa rek muy Fatima yi des ñëpp ay bidaa Fatima bidaatu rasul ndax mu nekk bidaatu rasul parce que avant ah, bi ñu am fekk na Moustapha dem Israa wal Miraaj ba dellu si. Mhm. doog am Fatima. boole ko waajuram feebar ñu jëli pom sa biir àjjana indi ko ko jox ko mu lekk ko wér ci la jële néew ba Fatima nga ne mhm. noonu la seen bu jigéen dem ak seen waajur bu góor. Mhm. mu gën a si àdduna nag Seydi Hadj Malick na nekk nag Cheikh Seydil fukki at dix yoo xam ni. saa yu ibbee bunt bi sama kaw lay jaar dem jàkk ci saa yu ibbee bunt bi sama kaw lay jaar dem jàkk ci nee na Seydi Hajj Malick ñetti yoon la ko mës a gis mu naan léegi boo xool ni du naan ñu ni waxu ñu ni ko waxoo li am ndax ku du naan amul waaye ñetti yoon la gis mu naan ñetti yoon nga gis Seydi Hadji Malick ñaan naan ñetti yoon Seydi Hadji Malick moo ko yar la doxee wala ma ci xasida maa mad rijli fii qawmin ijtamaau hakaza fii xalwatin min xawfi mawla Seydi Hadji Malick nee na sama baay Seydi Hadji Malick musul tàllal tànkam ci mbedd ci biir nekk ba ngay tàllal ni mu koy banqué ci biti noonu la koy banqué ci biir. ngir bëtu yàlla mi teg mi ko teg bët. am ñoo xam ne seen yar ci ci ci ëtt bi la waaye bokkul ci néeg bi. kon wareewoon ku sàmm la moom Siraj te ku sàmm nag boo yoree ku sàmm mu sàmm te Siraj Malick daan wax naa ne ñaar bu mu ko mënee am am ko waaye su mënta ñàkk ba jël benn muy lan muy yar. على ما سن وزاد الفتى بعدما تقى أدب وعلم وإصلاح به يضر yowmal xiyaam àjjana ku fay dugg da ngay jaamu yàlla ku jaamu yàlla du nga dugg àjjana waaye ku amul teggin doo tëg yàlla teggin googu nag nekk ci moom yar gi ne ci moom daf na xasida ci Sëriñ Babacar Si muy magam. jël mag ji. xasida boobu bi mu koy def Côte d'Ivoire la ko defee. ni Serigne Babacar si kër gi metti na. faaw ma dem liggéeyi jàppale la ci dépense gi ndax métti na. ndax ñuy wéeru ci yow yoo bare. kooku rakku ju am jom moo koy def. kooku toogul di xaar di ñu koy yàkkal muy lekk di naan di xëccu Serigne. dafa dem Côte d'Ivoire liggéeyi. ma ngi wax léegi xasida ayaa xaasidan naxwal xalifati yow mi jëm ci Serigne Babacar neel sama xol bi daa gëlëm. taxayara qalbi. sama xol bi mi ngi fe. aywaatan waaw sama maa ngi ñëw bu jiyee dugg bëgguma ci dugg ndax émission bi sa émission la. dama dama feebar. te li tax ma feebar mooy. namm gi ma la namm ak gëj gis gi ma la gëj a gis. daf na xasida ci rakkam. El Hadj Abdoulaye Dabakh. daf na xasida ci bàyyam Cheikh Seydil Hadj Malick. dañuy wax ni ku bëgg xam alaaji Malick te waxoo li alaaji Mansour bind ci alaaji Malick doo xam kan mooy seen alaaji Malick keroog bu mu gën a si àdduna nekk Cheikh Seydi Hadj Malick Seydi Hadj Malick yar ko di ko yar ba 1922 Seydi Hadj Malick daf ko woon ginnaaw jëm àjjana góor gi Ahmad Demba Sokone Seydi Hadj na am benn turu yàlla bu mu doon laaj alaaji Malick moom góor gi de Demba Sokone alaaj maa suñoo ne ko yow mbaaru lii ngay laaj mu ne ko doom yaa sob doo bàyyi buñ boole la ci waxtaan bi alaaj maa suur reetaan ni ko dangaa xamul waaye lépp lu góor yàlla di laal sama jox na ma laal naa xam nga ne à l'âge bi mu bi mu paree ci alxuraan commencé gu jàng xam-xam ijaasa bu góor yàlla jot alaaj maa suur ma bu góor yàlla jot alaaj maa suur ma ko bind te nee nañu ziyaare ji dem na ba muy dem màkk bi ngay wax léeg-léeg jaar na ci benn kër góor yàlla dem ba góor yàlla gi di namoon Seydi Hajj Malick dem ba bët yi gisatul gars yi ne alaaj Mansour kii ku bëggoon sa bàyyi la kaay jaaf kar ba mu tegee tànk ci buntu kër gi góor yàlla gi def ne Seydi Hajj Malick mu may xëy dafa ne Seydi Hajj Malick pour wane la mooy bidaatu Seydi Hajj Malick dafa ne am na Seydi Hadj Malick bu may xeeñ bi mu ne Seydi Hadj Malick bu may xeeñ bi El Hadj Mansour ñëwee dafa téye ci loxo bi am na yu bare bare bare bare yu mu wax ci moom El Hadj Mansour moom na bi gën lax ma démb sokkoon wax li ñu wax El Hadj Mansour El Hadj Mansour dafa reetaan dem na xale la ñu dem diiru jamono bi El Hadj Mansour dina law boobu Axmed démb Sokone daa feebar ñëwul ci dëj bi bi dëj bi paasee ci la ñëw di jaale ci pour ne la suuf suñu bindee El man yi dafa des ñu bind ci ki nga xam ne mooy El Hadj Mansour. dëgg la xam ne El mooy Seydi El Hadj Malick mu sotti. bi mu ñëwee mu laaj fan la ñu suul El Hadj Mansour ñu boole ko benn xale ni ko ñëwal mu yóbbu bu mu ñëwee ba ruubu si da xaaj maanaam ñu ne ko alaaj Mansour nga fii dafa daaru xam gars yi sotti ko ndox li mu ximmili ñu laaj ko lan la mooy alaaj Mansour wax na dëgg ñu ne ko lu mu waxoon muy dafa waxoon ni suuf bi ñu bindee alaaj Malick moo des ñu bind ko ci maa ngi koy dugg góor googu nag moo jur Serigne Mbaye Sy ay soxna Fatou góor googu nag moo yar ala moo yar Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji. Mm. te moo ko jàngal. Mm. moo jëlaat doom bu jigéen boobu jox ko. ñu mm. soxla moo tax góor yàlla yi miinu ñu woon Serigne Babacar Sy. moom lañu miin moom lañu xam. xanaa bi fi Seydi Hadji Malick moom moo dëgëral xilaafa Serigne Babacar Sy ndax mag ñëpp dañu ñëwoon ci moom daw ci nekk yaa doon alaaj Malick yaay alaaj Malick yow la xam ndax boobu Serigne Babacar mi ngi ndar kenn xam ko Serigne Babacar ku ñu ndax ndar mu jàngi ku ñëw boo seet seet Serigne alaaj Malick koy gis kan lay booleel alaaj Mansour la lay booleel kan moo jëflante yow alaaj Mansour lay jëflante day wax ne xam ne mii tey bu amoon doom tey yóbbu ko kaw la ngeen fii ñëw di fi gis Babacar rek si ko présenté ko leen xam ki ngeen ngeen xam. xamu leen ko. wala bi Seydi Hadji war a dem nag ci la indi Serigne Serigne Babacar si mu ñëw nag fekk na mag ñi nag El Hadj Mansour xam mag ñi El Hadj Mansour lañ doon jëflante ñu joxoñ El Hadj Mansour El Hadj Mansour joxoñ Serigne Babacar. ku ku ku déggloon Serigne Babacar ku joxoon ci sëriñ Babacar moo tax góor yàlla yi ne nu boo bëggee xam kan mooy alaaji Mansour demal xadaratul ilaahi boo fa àggee nga xam ni moom mooy chefu chef yi wala am na benn nitu yàlla mos a ñëw Serigne Babacar indil ko benn mooy secret jox Serigne Babacar ni ko am jaar naa ci Mansour jox ko waaye Mansour ku dëgër bopp la yàlla yàlla ñoom maay sax si kàddu gi lu yar lu teggin. ñuy wax genre wax yooyu jëmale si ñoom. Mm-hmm. muy nag dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dëgër boobu jox naa ko tur yàlla bi waaye nee ko bu ko laala fekk amagoo ñun fukki at. waaw bi Serigne Ahmed ak la am. 1920 la judd 1922 la alaaj maa ngi nelaw. sëñ Babacar téye turu yàlla bi woo benn taalibe foofu ni ko dama war ma Mamadou Mamadou rek la ko doon wax moom sëñ Babacar. Mm-hmm. dama war ma Mamadou. ñu dem woo ko bi ñu ñëwee sëñ Babacar tur bi ni ko diwle nee jox na tur bi waaye ne fit ci yow la fekk baax dëgër bopp ci yow la fekk baax nee bu ko laal mukk fekk amoo ñeent fukki at nee na alaaj Mansour ni Serigne Babacar mën nga ma amee ñaari minute ma dem ñëwaat sëñ Babacar ni ko jox naa la ndigal ñu dem ci këram indi tur yàlla ni ko Seydi Hadji Malick joxoon jox Serigne Babacar ni ko xoolal mu xool ni ko ndax ñoo yow Serigne Babacar ni ko déedéet ni ko ma amee à l'âge de ma ko si la ma ko Seydi jox dana Serigne Babacar ni allah mhm. pour wan la rek dimension am mooy Seydi Hadji Malick bu sotti kon ñu doo a dugg nag ci xasida yi yi nga xam ne daf na ko ci góor yàlla yi lu ci Mouhamed indi ñu dolli ko ci ndax moom mooy borom émission bi te moom moom moom li nga xam te moom mooy waxtaan bi nit doo ko doo ko doo ko dalal pare di ko gën a bëgg di ngay lekk da koy bàyyi bu lekk ba suur boo rek nga ñekk nga ñeexaatu bool yi rek mm. ñam li ngay ñam mm. kon sang yi xam nga léegi li ngeen def léegi léegi. Mm. Mm. neexoon na lool. Mm. mahabbatu yu nun boobu. wa am nun wa rahmun. wa taxu min anwaari man kaana aariya. Eh, mi wax nga ko à l'âge mu ne màkk. mu ni fa wayl isqallu wa waddaru min al-ghurabaa man kaana aariya. xam nga day jàpp xasida bi xasida boobu bëgg naa ak bi nga xam ne daf na ko ci Cheikh Seydil Hadj Malick. mi wax léegi léegi eh, arab. Euh, am na xam ne boo ko tàmbalee di woy ñu mm-hmm. jàng dan lay xas mm-hmm. da naan aayoo mooy du ñu tëb tëb rek dugg ci ki direct mm-hmm. ñuy jaar fi ñuy jaar di wiiri di laan loolu mooy neex tey boo ñëwee fekk siñax yu toog rek kii Mouhamed Oustaz Mohamed nga ne ko chéri Fatima du neex xam laaj maa sax daa mën a way boo xoolee bi muy ñëw fekk yeneen yëpp tëdd lan la wax alaa yaa rasulallah ñëpp fëgg dënd kenn ba jàpp ni yow la waxal ñu toog leen bare ngeen mais taxu leen màcc yaa am boobu ki nga wax dafay dafay mën a tiitaroo waaye boo ko tiimee naa ko bàyyi bàyyi diw chéri diw maami diw day gën day gën a xugalewu muy gën a génnee di joxe foofu lool gars yi lool la xam ci rasulullah moo tax ñuy wiiri kay wiiri waat. di wiiri ko wiiri waat waaye di ñaanal suñu xalifa bi yàlla yàlla gën a guddal fanam. kon sàng bi nañu indi laa tey ci bisu Seydou Mouhamadou Mansour. alaaji Mansour tawdal jaalalaati. Mansour sabral xalbukum salima. alaaji Mansour mawdoy baayam wal baaki. alaaji Mansour tawdal jaalalaati. Mansour sabral xalbukum teewal salima alaaji Mansuur mawdoy baayam wal baayam alaaji Mansuur surnaaka gurnaaka waaw yaa Mansuur yaa sanadi nekka yaa bahjata diin yaa ma'wal masaakin alaaji Mansuur tabal jalaalati ewaay sabral xalbu واي سليمان يا مجيب القوم سود والبيات منصور منصور أيوة منصور ما أتى منصور أيوة منصور ما مالك والبيات برم جرفو موضوع بايا والبيات أيوة منصور أيوة منصور مالك والبيادين على منصور مولاي بايم والبيادين الحالي منصور سمالك بسم الرحيم مالي دور بمرسيال صبر الصدور di wax lu mel ni kili bi door lii ci wolof laa ko defar alxaaji Mansour Sy Malick dem na Makka dem na Faas dem bi yaari xayru naas mm-hmm. Mansoor sa tur rafet na ca Faraas nga door a del si samp kër baayu Sëriñ Mbay Mansoor mm-hmm. ñu baax ñépp ngi yuuxu ngir weer wu mag ba dafa suux jantu nga neel nee na mërit ku jooyulit gis lu ko jar alxaaji Mansour si Malick adduna jeex na ba ni taraas ak kub lëndëm ku dee iraas fu nuy jëleetee ku nuy yéegal jox ñu lu nuy canee ak jabar alxaaji Mansour si Malick Maodo la jur mooy sana jaay tamoo la moo la xamal yoonu zikkar si mat nga door a dab sampu kër alxaaji Mansuur si Maalik araftul wala charxan wa garban wala ara كمثلي فتى المنصور في إسرائيل ولاي إذا صبخ الأكوان يوما إلى العلا يكون إماما في الورى wal waraa waraa Mamadu Mansuur si ñu baax ñëpp a ngi yuuxu ngir maru tarwa dafa diis ay waay jantu nga mel na mareet ku jooyu gis lu ko jar tabaarakallaahu xaj basir ku jooyu tamit gis lu ko jar comme fi ustaas Diarra waxee ci demug Màkka Alaaji Mansuur radiyallaahu anhu ak génnu àddinaam moom yëg na ko te Cherif Ahmed ak Serif Mouhamadou Habib dañu ñëwoon Dakar yàlla dogal soxna mooy mam booli soxna tabara suppa xariire bi mu doon defar soxna maam booli moom la ko doon jox pour mu ko yóbbul ñaari chérif yooyu chérif ahmed ak chérif Mouhamadul Habib ñu toog si ahmed Tidiane feeñu leen fekk ndax dañoo waaj takk seen bagage pour war a ñibbi di waaj si ahmed Tidiane feeñu leen ne leen bu leen dem ndax man Mansoor leen mu dem fekk ji Babacar ñoom ñaar ku nekk Sidi Ahmed Tidiane feeñal na la ko riir boobu dox ba yegg ci sëriñ Babacar Serigne El Hadj El Hadj Mansour El Hadj Mansour nag yëkk naa ko Sidi Ahmed Tidiane wax na ma ko. ñu kii lëndi la génn àddina kii aljuma ci ngoon. ci guddi la génn aljuma ci ngoon la génn àddina aljuma ci guddi lañ ko denc ndax su ma amaatu fàq bërëbu. Mm-hmm. fekk Serigne Xaru Touré. ñëw na di jaali si sëriñ Babacar Alaaji Mansour bi mu ko jaalee ba pare la sëriñ Hadi Touré nar dem mu ne ko Hadi dem xaar ma booba wax leen ne yëkkati na silxaam silxaam jàlla mooy soo solee jàllaam yooyu nga ciy teg mooy silxaam yu am tànk ramatu mu jox ko sëriñ Hadi Touré sëriñ Hadi Touré mi ngi ànd ak nijaam jim naan maam maam Zubayru Jaxate doom la ci xaadima Jaxate di nijaay ci sëriñ Hadi Touré altina jot mooy aljuma jot alaaji alaaji Mansour ne Abdou demal nga waxtaane jaamu yàlla yi bul génn xaal bu génn xaal rasul bu ma doyee ma bàyyi leen fi ndax soxlaatuma seen àddina bi dara ca ngoon googu ci la woo Serigne Babacar Sy Mansour mooy xalifa bi ngoonu aljuma lu yéema laa lay wax mu woo ko mu ñëw mu ne ko Babacar demal yees lu njàpp sëñ Babacar Sy Mansour yees lu njàpp mu yëkk ci ko taf ko ci kawam lam ko defal yëpp ngoon googu la ko defal ndekete ngoon googu lay signifié ne sëriñ Babacar Sy Mansour ngoonu al ngoon la aljuma ci boppam lay jot xalifa Sidi Ahmed Tidiane ndax sëriñ Abdou kañ ku ko jiite moo ko jiite mhm. ndekete alaaji Mansour xam na ne yàlla dogal na bu yàgg ne na sëriñ Babacar Sy Mansour mu aljuma ci boppam lay jot tariqa mooy xalifa Sidi Ahmed Tidiane yéeme yéeme asaarabu sëriñ xam nga ko jiite sëriñ Alaaji Mansour hmm. sëriñ Ahmed moo ko jiite mooy nañ ñaan mbooloo mi ne may leen ma ndax sama maam wax na ma nangam nangam moo taxaw jiite ko keroog bi ñu ko tegee ci ci ci jaag bi war koo jullee Alaaji Abdu daf ne ba may wax inni xalaftu wa tuuri hmm. Hmm. inni xalaftu bi rabbil bayti والطور مع إن رأيت فتى فيناك منصور نجل الإمام همام الحاج مالكنا شيخ المشايخ محرير ابن محرير مام منصور راج راج am nee na ba may wax ni inni xalaftu bi rabbil bayt wa tuuri hmm. lii nekkutoon ne bokk gi ma bokk na alaaji Mansour Baye wala yaay moo tax ma wax ko hmm. lii tax ma wax ko ci lañ ne nekk nañ ko denc ci fi ñuy denc baayam am nañu ne déedéet duñ ko fa denc waaye sëriñ sëriñ bi wax la ko duñ ci jaar. bi muy julli muy tari qul yaa ayyuhal kaafiruun au lieu mu ne qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduuna wala antum aabiduuna maa a'budu wala ana aabidun maa abadtum wala antum mm-hmm. noonu la ñuy jaay qul mu'min xulal kaafiruun aabudu maa taabuduuna wa antum aabiduuna maa aabudu wa ana aabidun maa aabudtum jël laa yëpp génne. waaw. waaw. xam nga wala antum bi wala ana ay sa way génne xulal kaafiruun aabudu maa taabuduuna wa antum aabiduuna maa aabudu wa indi ko rek. yàlla ni leen. laa taqrabu salaata wa antum sukaara. allahu akbar. bu ngeen màndite bu leen jege julli. sukaara waaw. kon yow mi màndiwul. mu mi judd mën ngaa màndi. yow mi màndi dafa ne bu ngeen di bu ngeen di bu ngeen di julli bu ngeen jegetee julli bu leen laal kon yow mi yow nga màndi mais bi nga xamee nag wàcc na xamante yëpp ñoo ko jàng ci aay bi. te kenn du ko àtteetee léegi. mais biñ demee ba màndi. di dóorantee jaas yi. Mm. Seydina Omar ne Seydina Mouhamed leeral ñu ci sàngara. ci la aaya bi wàccee bi nekk ci suuratul Maayida yaa ayyuhal laziina aamanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan kon fajtanibuuhu la'allakum turhamuun noonu la aaya di wàccee ci biir alquran bii di ëpp doole bii teewlu nga koy tabarukan moo tax bu ñu waxee nit dina faatu alquran indi na nit dina faatu waaye indi na nit ñi wax dañoo faatu ci yoonu yàlla kenn deewu ci ba tey góor yàlla yi dañuy recevoir ñi nga xam ne àgg nañu foofu ci ñoom. waaw ak bi ñu fi temps gi bàyyi woon ñu dem ci diggante Ibrahima rayaax yi nag Muhammad. dem ci Cheikhuna bi nga xamee ni. muqaddam bi bu muy mu ne Cheikh mooy jullee. yooyu ak yéen ak yéen ñu ngi jégluwaat ci kàddu yi. di baalu àqaat. di am reconnaissance ak yéen hmm. vraiment émission bi neex na lool hmm. neex na lool te yéen a ko neexal hmm. di ñaanal Oustaz Mohamed jisita xayran wa kufita sharran wala laqita fi ma baqita durran laa fudda fuuka wala burra man yej fuuka wala shalta yadaka wala rafia naxshuka summun bukmun umyun fahum la laa la la la laa laa laa laa qabtun qabtun qabtun fa sa yakfihum allah wa huwa la leen koy ñaanalee yàlla guddal seen fan allahumma amin ya rabbi yàlla sàmm leen yàlla wattu leen yàlla dëgëral leen tey ñu newoon fii tey ak yéen ci Sir Fadia ànd ak yéen spécial plateau Seydi Mouhamadou Mansour borom ñaari kaala yi di sama sëriñ di sama yaakaar teeg ëllëg yàlla day def def ñu juddoo ñu yóbbu ñu Tiwaawan ñu nàmpee Tiwaawan màggee Tiwaawan yàlla jël Seydi Mouhamadou Mansour dugal ko suñu biir xol ñu bëgg ko nag lool boo ku ñuy nax sax boon ci naxee ñu jël wala sax duñ ci bëgg di wax tabaarakallaahu ñaan yàlla rek yàlla yàlla defal lépp. di nuyu ki nga xam moom mooy chaîne président chaîne bi di bi di ko ñaanal di Serigne Sam ci chaîne YouTube bi di Salam Vision nekk ci banlieue bi nekk fii ci Pikine di ànd ak ñun nag ci plateau yu mel nii bàyyiwuñu kenn nag tous les yi yàlla xaajul laayeen képp ku yox baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah am nga wàll fii ci Salam Vision Salam Vision ibbil na la buntam kon fa tabarakallahu ñu jox suñu takkal Seydina Muhammad yi ñu nuyoo ñu tàggatoo rek ñu pare jox Oustaz Mouhamed ñu naan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. dafay ñu suñu nuyoo dañ koy dox Oustaz di wax ni ñun amuñu benn kàddu bu ñuy bu ñuy ndax. ay taalibe lañ yoo xam ni dañuy napp la bi kër maam Cheikh Sidi Hadj Malick léegi nag Oustaz suñu kilifa ñun amuñu benn kàddu bu ñuy wax dañuy wax ni. plateau bi neexoon na ala daw mi li seen su borom daa ji doon wax. yàlla yàlla barkeel ci yàlla Mouhamed. kon dañuy joxaat rek oustaz Mouhamed Ndiaye rek mu def synthèse bi. waaw macha allah Hadj Basir da nga baax rek. Euh, xaj jara ñi suñuy wëllëre xam nga nit mën ngeen mën nga koo mag ci jëmm waaye mën ngeen a maase ci roox te roox yëpp a maase lu mm. beneen demeen mm. waaye daal ñu baax lañu mm. ay tàggkatu yonent bi alayhi salaam bokk ak koñ bi fii ñu nekk ñu baax te teggeen dokka am solo hon nen ko kawne ko hormati wasalaman ko wasal o ɓe tarke ha fasalaman ko fasal ci horma nga yeggee ci yàlla waaye ci ñàkk horma ci ngay ñàkk yeggee ci yàlla te wax na ne mun ngaa jaamu yàlla dugg aljanna may ñàkk teggin dana tax doo gis yàlla te aljanna am na lu ko dàq mooy gis yàlla moo ko dàq te ñi ay boromu teggin leen suñu wëllëree suñu xarit kii mooy alxaaji ibrahima lii tabaarakallaahu mooy ku baax ku yiw waa sidi lii ku baax moom korom mm. la dëkk mm. tabaarakallaahu suñu soppe nag xaaj basir moom yàllaa ñu boole ah. ndeysaan fu mu baax fu baax fu ne mm. fu mu xam rek yàlla dogal na yóbbu ñu fa maris rek moo fi mujj ndeysaan yóbbu boobu mu teral ñu lool te moom yàlla ko yàlla defal jàmm biir aji biti ci barke yonent bi xajo faamara mm. borom oto bi tabarakallah porte bu yax boo gis ñu daaw ci dëkk bi rek moo ko moom borom caranga la borom caranga la moom moo ñu sagal bu al amin moom basir timit bu al amin la yàlla yàlla barkeel kontaan leen bu baax a baax mm. di nuyu ñi nga xam ne fii lañ ko doon defee mm. muy soxna Xadijatu Géy suñu jigéen mu baax lool ñu mm. lool nag mm. ñuy defal teraanga ngir yonent bi alayhi ñu ngi koy bëggee teraanga yi nga xam ne moom la ko defal wallaahi rëy na lool waaye yàlla na ko defal yàlla na ko yàlla fayal barkeelam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu soxna Caani Géy mooy suñu dama koy tooñ ne ko Caani Géy yaay suñu sëriñ ndax yow sëriñ nga jëfina sëriñ rek ngay jëfee ah. ñu ngi koy ñaanal tawfiq taysir Xaji Sam ñu ngi lay ziar bu baax di nuyu sopp yonent bi soxna téléphone mi ngi mm. fii Cité Fadia mm. suma ñag boobu maa ngi koy ziar bu baax mm. tabarakallahu xaaji Pape ca France ñu ngi koy ziara moom tabarakallahu daf ñuy defal caranga ah. Moustapha Camara mi ngi France ñu ngi koy ziara soxna Ndiaye mi ngi France ñu ngi koy ziar soxna Awa Camara mi ngi fii interset ñu ngi koy ziara baax ak soxna Ndey Seyni Diop barki démb ci anniversaire bi Babacar wallahi al azim dama woo jox mu yëre ñëwal ma ko ne ko maa ko def ci siñ Babacar ñu ngi koy bégee di ko ñaanal di nuyu sama turandoo boobu di ko ñaanal soxna kii ay dara bu Serigne Babacar. ci été euh, mooy ci cité Aline Sow ñu ngi koy ziara. Mm. di jigéen ci Serigne Talla di doomam di léppam xaja Talla mi yore léppam. Mm. ndeysaan yàlla yàlla barke léppam lu muy ci barke yonent bi alayhi salaam. Mm. Oustaz Jara am nañu mbégte am nañu kontaante. yàlla taxawu la zaahiral baate lépp la wax ci ñun rek tabaarakallaahu ci yow la ndax ndax sa yaatal ak sa ubbeeku ak sa bëgg nit tabaarakallaahu nekk nitu daara kon yow dañ lay ñaanal rek yàlla nga mu ci cat comme ni mbaam muccee ci tabaski ci barke rasulillah alayhi salaam Haji moom nga xam ne moom la yaa dogal mu mu jiite lii mm. yal yàlla sàmm ko laxal ko jàpp ci barke yonent ba alayhi salaam Babacar nga mu nga fële mbooro maa ngi bu baax mm. mm. soppe yonent ba alayhi salaam koo xam ne yàlla yaa ngi béggee rasulillahi ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm biir ak biti ngeen am jàmm ñi am jàmm ci barke rasulillahi alayhi salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabaarakallahu ahsanta akmalta matale nga yal na yàlla defal lépp yàlla fa ñu sutura ànd ak alaaxira duñu daanee nag te nuyu suñu sëriñ yooyu ziyaare leen di ndokkeel sëñ Hamza Mbacke di bisu maam ji di bisu ma kër maam Thierno mhm. Mbacke borom daaru ñi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa waxoon ni ko yaay sama loxo mhm. ko Thierno lu may sédd yow laay jox waaye ko am yaa ko jox kon fa tabaarakallahu bisam boobu tey moom ci

du ma fàtte fa tabarakallahu sama sëriñ sama oustaz lépp sëriñ Babacar Diarra ba daan ne ci man tey mu def ko ci man dëgg yàlla ñaanal ko yàlla yàlla gën a guddal fanam. ñaanal samay wajju li fi nekk yàlla yàlla gën a guddal fanam. di faatu yal na yàlla dolli ko jéggal muy sama soxna yëpp nag di jiital sama jëng tabarakallahu soxna Dieng maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. ñaata la yor. baax a baax baax a baax. yow kay comme ni ma sa soxla la. maa ngi sama soxla. yow amul soxla waaw kon tabarakallah nuyu ko bu baax ziyaare ko ñaanal ko yàlla yàlla gën a guddal fanam. tax na suñu yaay tilimul tax na suñu yaay saltewul suñu yaay xiiful maawul. ni nga ko taxawoon yàlla na la sa jàmboot. dund màgg ba taxawoon lool. soxna suñu làmmiñ yàlla mu doon cat ci yow. soxna suñu làmmiñ yàlla mu doon teew baax nga yaru nga teey nga dal nga bëgg nga suñu mag wax yàlla sagal nga ko tamit yàlla yàlla barkeel la barkeel njaboot bi yëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi nekk ba Mbàkke mm. di doom ci maman Adama Mbaye waaye di bàyyi ci maam Thierno nii mm. sama jarbaat loolu soxna Koumba Sula mm. soxna Naama duma fàtte nag soxna na fi ñaan taalibe Serigne Moustapha mu Serigne Abdou Aziz bu Serigne Babacar Sy mu Cheikh Seydi El Hadj Malick na fi maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax yal na yàlla gudd sa ci li nga xam ne mooy anniversaire sama bi di Seydi Mouhamadou Mansour man xaw ma di ko mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak ñoom di seetaan Salam Vision wasalaamualeykum taala wa